PDS euh, ou bien Bougane euh, Bougane dembo Disney euh, mu def rek ab vidéo di xamle ne fu toll ni ci élection présidentielle yi amal suba inshallah. amul kenn militants pour rek ñu mais abstenir ba deuxième tour mu la kan on ko le deuxième tour day am. ah moom Bougan, moom deuxième tour bi la jafandu de. <laughs> bon pour euh, man euh, il est en train de rater un tournant décisif notamment de sa carrière politique. Mm. mais aussi du trajectoire euh, Sénégal xam nga Bougane man en 2019 choix bi mu defoon ci Idrissa Seck c'était un choix incohérent mm-hmm. vu mon discours vu parcours am man et puis lui il se réclame de l'antisystème. Mm-hmm. alors euh, vous bu ñëwee ci euh, élection bi mu ne dafa banque comme nico PDS défend en 2019 Quand bi ko PDS défend en 2019 j'avais dit que ni ça faisait l'affaire euh, du président Macky Sall. Mm. parce que euh, man jàpp ne pas choisir c'est aussi choisir hein. mm. parce que le choix comme dit André Gide c'est fatal c'est le rejet de ce que l'on ne choisit pas alors donc euh, ak péripéties Sénégal dund depuis 2012 bataille voilà depuis 2021 bataille. New ñu yegg ba ci fii abstention wala nous ku ne def lu neex pour man loolu euh, fuir ses responsabilités là d'autant plus que Bougal sur toutes ses interventions il a été l'un des opposants les plus radicaux mm, mm. au régime alors donc kon yow bu critiquer le régime bi ak critique yi nga ko critiquer boobu ba léegi ñu bàyyi ba fi nga xamante ne foofu la Sénégalais wara opérer un choix nga né yow défo choix mais ça pose une question vraiment de cohérence. peut-être ils se retrouvent pas aussi euh, si euh, élection puis aussi Pa Moussa mun ko nangul lolu non bañalu mako dara. oui dama d'accordul. Mhm. xam nga bañal ko ak baña a d'accord bokul dama né cohérent wul. parce que euh, je ne l'ai jamais entendu critiquer aussi ouvertement mhm. l'opposition que le pouvoir. c'est vrai Mon pouvoir bi la doon ŋàññ. alors ñeneen ñi mu ŋàññul. Euh, te man dama ko dama ko wax. Mhm. dama bok ak Bougane jotay mu ne euh bu mbiri continuer non moy moment yi ñu doon wax. que ni fay soutenir euh, Sonko ou son candidat. Mhm. je l'ai entendu je l'ai vu. alors donc kon tu jii ni bu ñëwee euh, nekku ne na def lu ko neex man je ne comprends pas ça. Mm. ben ñaarel ba moy aussi cette absence de choix là pour man ça fait l'affaire du du du du du régime. du mm. candidat. Euh, ah, du parti au pouvoir oui mais c'est l'a que parce que en fait euh, critiquer aussi aussi sévèrement aussi radicalement euh, son régime après nous, voilà légui sénégalais yi ak ñi nga la ci gëm cohérence wala li tax ñu Bougane opposants farouche nek opposant radical nous nous nous reflété donc je ne vois mal comment euh, avec cette bipolarisation nous allons croiser les bras mais euh, le corps électoral nous convoqué. oui corps électoral nous, nous, euh, sénégalais Japonais, euh, les véritables enjeux. Mm-hmm. actuellement Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum dafa am un euh, acteur politique bu ñëwoon di ñaanlu ci moom. Mm-hmm. ne ko nako ñaanal ndax dafa bëgg a doon député. Mm-hmm. sëñ Cheikh ne ko yow fan nga far mu ne ko je suis neutre. Mm-hmm. sëñ Cheikh ne ko neutre contre qui mu ne ko contre Abdou Diouf. enfin ce qu'il voulait dire ce qu'il voulait faire comprendre à son interlocuteur c'est que neutre amul parce que tu es contre Abdou Diouf donc tu es de l'opposition hmm. donc notre auto, neutralité parfois moi, euh, mooy li nga xamante Euh, pour man choix bi gën a catastrophique ci choix yi la hmm. mbir am à nga toog croiser sama say bras ne sama yoon nekkul ci mbir bi xew hmm. donc euh, je le dis et je le répète Bougane Gaydani, Dany mi ngi rendez-vous bu ama am l'un des rendez-vous les plus importants de l'histoire politique du Sénégal mu ngi raté et mi ngi raté euh lo xamantene dina impacter demain aussi ci qui euh, ci euh, euh, trajectoire politique parce que le PDS l'avait fait est-ce que le mu lu mu pratiquement non. Mm-hmm. il a changé de fusil d'épaule. Mm. donc qui la ñëk ci néeg bu lëndëm mom mo lay wax fi ngay tok donc je pense que ni c'est un choix qu'il a fait que nous respectons mais que je considère qu'il va le regretter après. Mm-hmm. Le deuxième tour bu amul nak euh, non, mais Bougan, est-ce que... Tu... C'est une possibilité. Tout le monde sait Mais je pense que Bougan peut-être n'est que euh, si secret euh, des, des, dieux, parce que ça fait maintenant 15 jours, Madame, me dis ce journal en tribune, nous à chaque fois, nous Bougan accepter le Sénégalais, Linga nga xamné mo nek deuxième tour bi man dama à chaque fois nous wow. revenir je sais pas le pourquoi bon ça veut dire que le journal n'est pas carrément neutre alors si le journal reflète l'idéologie la pensée de Bougan mm. Ah, j'ai pas compris pourquoi euh, non, vraiment vous, à chaque fois. donc, donc, donc, donc, son journal aussi essaie euh, de nous prolonger le, la mentalité, l'état d'esprit de Bougat guédani Là aussi, c'est catastrophique parce que c'est censé être des professionnels. Yo xamantene waruñu am euh lu tak ak euh li Bougan Mais même même au cas du deuxième tour mm. est-ce que ça justifie yow nga tok euh, di le deuxième tour bobu non? À quelle fin finalement? Mm. Franchement. Mm. Euh, oui deuxième tour d'accord mais aussi premier tour c'est une lecture possible pour moi, ça ne sort pas de l'impossible mhm. avoir une élection qui se termine au premier tour mm. pour moi, c'est impossible Sénégal euh, peuple mature au-delà des mobilisations au-delà des manifestations au-delà des débats sur le sur les médias et autres la masse euh, de la population très silencieuse mais quand on euh, na mën na def décisif on se demande mais attends nous mu non Le mm. peuple est ni mais lu lu possible donc maintenant euh, comme comme mom japp na né mbir mi ay deuxième tour la qui kii léegi li def deuxième tour pourquoi mënu ko def tour parce que deuxième tour c'est c'est deux des 19 candidats là mm. mënul don kenen mm. donc bu voulez choisir kenn ci c'est le deuxième tour pourquoi mënu ko def pour que son choix soit plus légitime pour que son combat euh, soit beaucoup plus euh, historiquement euh, légitime parce que euh, légitimité historique vous ñu koy wax adhérer sur une cause. Alors, mm-hmm. le alors deuxième tour ça ne peut pas se faire entre Macky et Ousmane Zongo. Mm-hmm. ils ne sont pas candidats. ça ne peut être que les 19 candidats Les gens nga ont a jàppee choix bi nga koy en amont ça frise des calculs politiques qui pour mal euh, qui ne dit pas son nom. Oui. Euh, euh, euh mhm. Bougan qui peine vraiment à se désister, euh, à se euh, décider ces élections présidentielles Vous comme pas Moussa nous ko parcours politique Bougan mhm. avec juste sa position yi a ramené depuis trois ans le régime du président Macky Sall pourquoi selon vous Bougan peine vraiment vraiment à choisir un candidat waaw man dama dama am yaakaar ne tey jii dafa nekk comme ni ko Pape Moussa di waxee léegi dafa nekk di rater le train de l'histoire hmm. euh, xoolal ma kan kan nga mën a taxaw ci leader yi wala ñu am yenn représentativité hmm. fii ci Sénégal ñu ne élection bi dafa fas yéene banque ay yoo xam ne du ci bokk hmm. bu weesoo Bougane Gueye Dany lol ça pose problème déjà. Mhm. parce que su fekkente ne acteur politique nga waro nek spectateur. te position bi mu position spectateur la. Mm. te bu nekkee position spectateur suba bu ñu netali histoire du am lu mu ci netali parce que day taxone boba kat position spectateur la taxawone Pape Moussa euh, mi ko doon expliquer légui gis nga bu fekkente PDS defoon nako en 2019 gor gui dem konakri ñibisi ne tal leen urne yeex mm. lak leen lii wëkk def leen lii wëkk euh, bu kan euh, ku nek setiko mu ne bu koy jàppale kenn toog jàpp ñàmburam implicitement Macky Sall la dimbali. c'est vrai parce que euh, Macky Sall s'en est sorti avec 58 PDS mënoon na peser 8 fait su mhm. fekkente 8 amana amna amaana am na mu doon demee deuxième tour. mais xamna na ne su ne woon tekk tekkaaral Macky Sall lay dimbali. Bougane dafa tok mu ne suma ma Macky Sall di xeexal ni damay wut yett ma dóor ba paré mané lu ngeen joté mhm. cela suppose que ne moom tout sauf Macky lay demee. Mhm. té ñepp xamna nañ élection bi ñaari pôle ñoo taxaw ñaari pôle ñoo ci gën a fës bokk mhm. léegi ñaari pôle yi gën a fës lan moo la tee nga dem ranger ci benn pôle bi d'autant plus que xamuñu jafe-jafe boo am ak pôle boobu mhm. loolu benn beneen problème boo xamante ni mën nañ ko tey constater parce que bu doon logique donc la ñuy demee dafay choisir les yeux fermés mhm. ne man kat damay dem jàppale ji ñi parce que kat comme niñ ko yàgg di waxee bu fekkente ne daay dafa am doo seet ban ndox nga koy fayee seen équation mooy dafa moom daf koy wax système bi lañ bëgg mu changer ñu am nga ñu jàkkaarloo ak moom di xeex ak moom waaye waaye lan moo tax dooleem buux la ba ñu jàll même bu paree sax nga dem raxas say loxo ba mu set nga ne man gouverner intéressé ma sama objectif buux leen ñu ñu génn la woon parce que gis nañ ko mu def ko ci élection boo xam ne bokkul mm-hmm. mu battre campagne bii lan moo tey ji lan moo dox ci diggante ba nangu ko mm-hmm. ma jàpp ne nag am na leen loo xam ne rax na ci biir muy mbirum ego égo mbirum égo mm. je pense que problème fondamental c'est un problème d'égo ok Bougane yeewi askan wi woowoon nañ ko ci bu mu génnee li doon kaas couleur yeewi askan wi. Mm. Euh, dañ ci dugal couleur bi couleur vert la couleur rouge la euh, lan moo tax nii nii ak ni ay détails yoo xamante ne pour man mais yeewi ñu fa nekk est-ce que mënoon nañ dugal seen couleur ci biir kii bi. nga xool rek nga ne kon lii couleur Pastef la ak couleur euh, taxawu kon man bokkuma parce que ba ñuy def yi def yi def yi. Mm-hmm. gis nga politique boo ci nekkee parfois il faut nga muus politique ruse la. faire des compromis. non d'accord mën na ci bokk mais muus la mm. muus mooy lan nga mën a am lecture situation gis nga le bon politique c'est quelqu'un qui sait lire une situation mm. situation politique dañ koy lire mm-hmm. mais bu fekkente ne situation bi dafa taxaw yow nangu woo koo lire nga tiitance à carreau nga dem taxaw ne ne sa yoon nekku si du ci addu du ci def dara ku neex waaye dama non seulement mi ngi disperser ay ay ay électorat de deux mi ngi perdre ñi nga xam ne mooy ay militants mm-hmm. parce que am na ñoom bu ñu demee du ñu dellu si bu ñu demee du ñu dellu si bu ñu votelee diw xamul nit ki jël bulletin secret bi am ci jël bulletin dugal ko diw. Mhm. da nga jàpp ne kii maa ko fal donc c' est mon président. c' vrai yow après boo wëlbatikoo nga ñëw naa ma non man maa nekkoon si dama naa ma eh, tiens yow yaa ma bàyyi man ma dem kële léegi sëyali naa ko. Mhm. jàppale naa ko ba ñu takk ko léegi sëyali naa ko ma ma ma xool parce que am naa responsabilité tànn boobu et puis euh, taxaw ne damay damay damay abstenir wala non non euh, fu ne fu ne fu ne dem pour man du du position bu courageuse. Mhm déedéet parce que pour mon courage politique li mu demande nga taxaw nga choisir même boy tan Amadou Ba nga ne Amadou Ba laay tànn bu la kenn nga ne ken doole mais li mu mun na nangu ne deuxième tour comme quoi da nga bëgg a yóbbu nit ñi deuxième tour day am coûte que coûte. en tout cas tribune mom euh, seetlu ko ça fait maintenant 15 jours à chaque fois dañuy ñëw euh, sur cette question de du du deuxième tour. dañ ci ñëw lu bari euh, élection bi fay dem deuxième tour. Karim Wade ak. Mm. Bougane gay hmm. faiseur de roi wala nangam ak nangam toujours da ngay gis genre ci biir ci biir ci biir ci mais finalement est-ce que Bougane sax euh, voilà euh, c'est un homme politique amna lu aussi à euh, deuk bi créé na ay emploi mais qu'est-ce que Bougane aussi pèse vraiment c'est li nga xamné que nek ci espace politique bi parce qu'on a vu ñaari élection yi nga xamné ne Bougane tenté na bu dem à la présidentielle d'un koy sur des questions de parrainage mënaguñoo xam lu muy pesé. parce que boo ko waxee day dem ci local mu ne tant de conseil j'ai tant de conseil ak nangam ak nangam te xam nañ ne tey jii bu fekkente ne Bamba Fall ci listam la demee ñëpp xam nañ Bamba Fall base am Médina mhm. c'est autre chose par rapport ak que euh, gëm sa bopp mm. nga déggaat mu ne la ay conseil gauche à droite tamit ñooñu lan la ñuy pesé détacher leen détaché ci biir euh, gëm sa mm. donc comme mon élection ba léegi kenn xamagul poids électoral moo tax ma da bokkoon si ñuy ñaan mhm. moom ak Karim Wade du ñu dem élection